benn doomu Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacke mu suñu la ñaamar nee na nga jéggal Abba ndax yéen ne ko non sëñ bi ne ko mu ngi tudd ñu lijjanti li nekk diggante bi eh, waaw fii moom dama wax leen ndax xam naa ne fii daal yàlla seetaan xeb dool yi diggante Boucher ak Abba lii mënta jeex tey ndax li problème mooy Abba mii Boucher dafa tooñ Boucher te Boucher mii dañ ko indi ba TFM sarxe ko man su ma xamoon ni lii la du fi ñëw xam nga lépp yow rajo yi may sa maam xam naa la léegi soo waaji a ngi tuub doomu banlieue nga tout sedd na lool. Mm. Mm. may doomu banlieue sedd na mm. Camara nga sant. nga sant Camara sant Camara. balaa yii di xew. sama nga ndelu mu ndelu sama xarit nga woon avant yii di xew. waaw lamb joo am fi ñu toll nii. fi ñu toll nii moom damay engagé ak yow nii communication place bi maa ko yor lu bon la ma doon wax yëpp dama koy mujj faraat. xel mi yëpp sponsor la ci gën a bëgg. ay buuse <laughs> diggante ak sponsor maa ko xam. léegi 5 millions 4 millions. dama am ay dama dama am ay nit ñoo xam ni dañ maa bëgg mais dañ ko. bëgg moom. bi ñu xamee ni moom laa invité dañu maa may ay loo ne ma Boucher bëggul ku dul yaayam ak sa femme moom soxnaam ak yaay ji la bëgg. may nañ ko mun naa de bi jula yàlla dimbale ba nga gis ko may nañ ko daa mel dañu coppi Boucher teg ko may nañ ko dara ji Alaaji Malick koy mun a doom ji mooy doom ji mun a mun a doom jigéen ji mooy dañoo kuppati buusa tëg ko léegi modèle la xale bu la xoolee bu la xoolee nga xam ne kii ah, ah, ku jur doom deewoo léegi bu buusa gaañowoon nga xam ne ma lépp dëgg léegi may nañ ma ay loo yoo xam ni moom moo ko moom ak soxnaam ak yaayam hmm. ñi ma may ay loo yi nag bu ñëwee fii dinaa wax kan ak kan ñoo may ak lan ak lan lañ ko may mais xam naa ni fi ñu toll nii dafa ñëwoon ak tàngaay mais boobu ba tey maa ngi wax mu noppi hmm. kon foog naa ni problème bi lijjantiku na damay jël benn téléspectateur bu ko defee ñu arrangé problème bi. xam naa ne seen enveloppe yi de li fi indi problème bi moom. waaw adduna amul solo. bu fekkee am na téléspectateur yu nekk ci ligne bi mën ngeen a woote ci numéro yi mën ngeen def 88 676 0707 wala 88 676 0606 wala 88 628 65 65 wala 88 628 20 20 non mais bu dee. laaj la fii mënoo fee wuy client laaj Diop moo woote moo xamalaat dafa bëgg jàmm sama lat sama grand la donc bu dee am na téléspectateur euh, bu nekk mu calme waaw loolu loolu lañ koy wax kii du nit murit sadiq la oh, kii du nit ba pare nu mu mën a def man ba xam ay ñoom lat ak ñoom Matar Diop yow newul ci loolu mais fii nga nangu deuxième. kan la ah diggante moom Noura Baldé yàqu ko. kooku ko yàq. président. <laughs> léegi nag fi ñu toll nii bu dee am na téléspectateur bu ne ci ligne bi sama xarit la kii. waaw président wallaay kii sama xarit la. jàmm rek la ñu bëgg. waaw bàyyi téléphone bi haut-parleur. waaw waaw bàyyi euh, téléphone bi haut-parleur. bàyyi téléphone bi haut-parleur. waaw bi haut-parleur. allo bi haut-parleur. ñu ngi déglu parce que tamit lat suñu grand la ñun ñëpp. non non non ñun ñëpp xam nañu Abba moo tooñ. waaw comme jëg wax dëgg yàlla bi bu sa ñàkkee pouvoir bi ba léegi daal xolam neexatul ñu koy sonal lool lool lool <laughs> bi mu ñàkkee pouvoir bi ba léegi duñ ñàkkee pouvoir bi mu ñàkkee pouvoir ba léegi ñu ngi taxaw ci place am di ko yàqal liggéeyam sonal ko lool te nguuru yàlla ko dul léegi nañ yeggali léegi nañ yeggali fi ñu nekkoon euh, fi ñu nekkoon mooy bi laay nguur jomb la wallaay ki sama xarit la yaa ngi ànd ak ñu baax ña ngay jàpp leen rek am na ni bu caaxaan faaxee moom sama xarit la kii ma ko bëgg barki yàlla kii ko bëgg ki sama xarit la oh. seytaane moo la <laughs> sama nit la du nit kuy mer yooyu dafa am xët xët di tàng di kii mais yow xamal nga ni boo ñëwee ci plateau bi dañuy juboo xamal neexul neex na léegi baax na neex na xamoon naa ni ab koo nga bu ma la fii bu fi ñëw da ngay ñëw parce que sa xel mi baaxul mais pour lii laa bëggoon nga ñëw ñu waxtaan ka foree yàlla na yàlla defal la jàmm lool jubóob yomb na yàlla defal ko bàyyi leen ku ma amal problème ngeen yéen problème yëpp yéen a koy la violence. la paix en Casamance. <laughs>